mooy répercussion économique yam okay. ça veut dire que cette masse salariale qu'on mange ici dañ ko transférer dans les régions buñ ko transférer dans les régions automatiquement un Aliou Sow qui se retrouve à Tamba avec un salaire de cinq cent mille francs mais il a besoin d'une bonne maison mhm. pour dëkk promoteur immobilier am nañ liggéey déjà il y a une spéculation foncière suuf si commencé. am valeur. am valeur am yëg. Hmm. les gens ont besoin de restaurants les restaurateurs y vont. parce que ñoom dañuy dem restaurant le phénomène bi américain di wax taxi ah il doit il doit se déplacer dañuy soxla ay taxi nga gis ay taxi dem. day rogalaat cetera da ngay jékki-jékki ah da nga bëgg am carnet de doléance fa ngay gis les véritables problèmes dégg nga surgir dans chaque région. dans chaque région pour le plus grand bonheur de l'économie parce que ci saa si on a besoin d'investir partout les gens voient la route partout et cetera en délocalisant ba nga xam ne deux cent huit cent milliards yi dem nañu c'est comme si dégg nga tu mettais l'équivalent de deux cent milliards dans chaque région par an mu naan ma hôpital affaire cuune la dégg nga tu as dix hôpitaux ah, tu as des taxis tu as des bus tu as du ku koy def peuple bi parce qu'il y a une activité dégg nga tu as créé des millions d'emplois mais ça un homme moo tax président ah yal nañu yàlla defal jàmm président day nuru Umar ibnu Xatab wala du doon dara président dafay am caractère président c'est quelqu'un qui se sacrifie da ngay seet scandale bi nga cité léegi avec les V8 là comment ah naka la ñu mën a comprendre dans un pays qui, qui fait partie du lot des pays les plus pauvres au monde. Mhm. Mhm. Hein? Qu'un ministre, donc, hein, puisse avoir une voiture qui peut acheter cinq voitures pour un ministre français. ku ci nekk oto bana mu mën naa jënd cinq voitures. <laughs> foofu fukki oto mbindaan mi sax buy dem marché. cortège bi y' a plus de nag maintenant doyen gis ni. <laughs> Uh-huh. loolu xamul doo doon parce que politique bi bi ñuy dawal ñoom suñu président yi mooy dee leen yéen askan wi ñun ñi nga xam ñun ñoo leen jiite ñun ñu dund. mu nekk ci guutaandaat. mais defar mais defar ñu mais defar yow on t'aurait ministre de l'enseignement tey. ne la ne la Ziguinchor ministère bi nekk avec tout le monde. ngay kontaan mais duñ ko def xam mais da ngay dem da ngay dem parce que xam nga loolu la ñuy préféré jël ab ministre boo xam si cuune la mais ci ñoom la far. daf ma laaj léegi qu'est-ce qu'il dafa ma dafa ma noonu sa noonu la ñuy xalaatee. sa nga ñoom ñëw dafa laaj qu'est-ce qu'il dafa laaj qu'est-ce qu'il faudrait faire noonu day nekk ñoom. dafa laaj qu'est-ce qu'il faudrait faire. Hmm. mais ñiy defar taxu leen a jóg. waaw loolu mooy problème bi. qu'est-ce qu'il faudrait faire je dis que ce qu'il faut faire dégg nga en faisant cela lebewuñu xaalis ba tey lebeeguma xaalis te j'ai mis presque deux cent trois cent milliards dégg nga dans chaque région parce que en plus de la masse salariale en créant dégg nga see besoins mu am ay opérateur économiques yu ñëw tu es en train d'investir dans économie li ñu xam ñoom mooy IDE IDE investissement direct étranger Vietnam fan la économie toll tey. Mhm. Vietnam yi dañ ko bañoon ba tëdd ci suuf. waaw on va investir ñu ne bëgguñu on va mais bëgguñu. dégg nga on veut notre propre monnaie dégg nga on va créer les conditions yi nga xam ne ca la ñuy intéressé dégg nga pour que ñu mën a am partenariat avec qui que ce soit kii dañu am ay problèmes yu ngande yu nekk ci àddina bi tey kii nu menace dégg nga yoo xam ne ci la waroon nekk te def cee nekkul dégg nga beneen bi moom laa njëkk euh, euh, euh, wax léegi dégg nga les pouvoirs qu'on a donné à un chef d'État Je l'ai dit sur plusieurs plateaux, le président du Sénégal est plus fort que le roi d'Arabie Saoudite.